wa in xabadan ak doonte ab jaam la kamara atin niki jigéen day wax nag bu fekkee ña fa tase kenn ku ca ne mat na ilimaan muy wax nag kan lañ gën a taamu mu jiite nde moom sax ku ca jiite rek bu baax ndegam ñoom ñëpp mat ilimaan su fa buuru jullit ba nekkee wala ka ko fa wuutu taamu nañ ñu jiital ko doon ci sax day ci jàkk te fekk ilimaani raatib ba nekk fa itam buuru jullit ba wala ka ko fa wuutu lañ gën a taamu mu jiite bu dee ci kër nag boroom kër ga nekk fa te it nam ko moome noonu la ci dëkkee taamu nañ moom mu jiite su fekkee ne nag kamum kër ga dafa nekk ka ko luye dëkk fa nekk fa lañ gën a taamu mooy ka fa luye jiite ndax mooy gën a xam xibla mooy gën a xam fa laab ak fa laabut doonte nag borom kër ga da di ab jaam wala muy jigéen wala bu dee ci luyaas ba ke luye kër ga di ab jaam wala muy jigéen it lañ sopp rek mais bu dee jaam baa moom ci boppam na jiite jigéen ji moom du mën a jiite benn yoon waaye nag ndegam mooy borom kër ga bu doon góor mooy jiite sopp nañ mu seet geneen góor gu mat ilimaan ne ko jiiteel taamuñ rek mu daal di bàyyi noona keneen jekki-jekki jiite te du moo ko ca may ndigal kaman niki koo xam ne xaama taxaw na bii ci moom maanihun aji teree jiite min huma ci ñoom ñaar day wane ne buuru jullit ba ak boroom kër ga koo ci xam ne day ne woon yow lañ taamu nga jiite waaye nag am nga ngànt luy tee nga jiite daañu sopp rek nga seet ku mat ilimaan jox ko ndigal mu jiite te bañ loolu nag wuute naag ñee wuy bëgg a tudd ñee moom ñee moom koo ci xam ne yaa sësoon ca jiite ga ca nañ ko taamoo waaye nag am nga ngànt lu tee nga jiite dañ lay bàyyi rek seet ka sës ci yow waaye doo am sañ-sañu jox kenn ndigal ne ko jiiteel fa abin topp bàyyi fa xammin topp bàyyi tax fa saa idi fiqihin topp aj ëpple xam-xamu fiq fa xadisin topp aj ëpple xam-xamu hadis fa xiraatin topp aj ëpple alquran fa ibadatin topp aj ëpple ak jaamu yàlla fa musinnin topp aj ëpp ay at fil islaami ci biir lislaam fa qurashiyin topp ko jug qurash fa maalumin topp ku ñu xam nasabuhu askanam dafa jàll ci tegale bi ci kaw rek sopp ña fa nekk bu fekkee ñaar mbaaloo ëpp ñaar ñëpp mat ilimaan waaye am na ci koo xam ne bàyyi la ca ka ca des mbaa ñu ca des kon sopp nañ bàyyi ba jiite te doom ja mbaa sët ba bañ koo jiite bu dee bàyyi tax sax ak doomi mbokk ñu bëgg bàyyi tax mooy kañuy wax bàyyi bu ndaw mu jiite doomi mbokkam moomee ba tey bu fekkee am na fa koo xam ne moo gën a xam xam-xamu fiq sopp nañ ñu jiital ko doon ci sax am na fa ku gën a xam xam-xamu hadis xam-xamu hadis moo ëpp daraja lool xam-xamu fiq waaye nag ka xam fiq day gën a xam mbiri julli ga ak nañ koy lijjantee ndax ëpple xam-xamu addis rek bari cag mokkal bari cag takk taxuta xam nag ni nga xam ne moom la boroom xam-xam yi tegalee masala yi ci bu ñu dajee dañu yaar yu bokkut bu ñu weesoo nag ka gën a xam fiq door caa teg nag ka gën a géeju ci addis door caa teg ka gën a mën alquran ca mokkal ga ak ca maxaarijul xoroof ba door caa teg ka ëppale ak jaamu yàlla maanaam xeeti naafile yiw yi ka ko ca ëppale say boo ñu teg ko ca teg ca ki gën a yàgg ci lislaam duñu seet ki gën a bari ay at su fekkoon ni kii am na ñeent fukki at waaye ba mu duggee ci lislaam ak léegi fukki at la am koo xam ne ñaar fukki at la am waaye ci lislaam la juddoo ba nam toll boroom ñaar fukki at yooyee mooy jiite boroom ñeent fukki at ya ndax yàgg ca lislaam lañu seet seetuñu barik at ya ñu doy caa teg nag wàllu askan te jiital ku bokk ci Quraysh ndax nekkam Quraysh ci la yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk day daal doon kon askan wa gën a màgg kon ku bokk ci Qurayshin bu fa nekkee ñu jiital ko moom lañ gën a taamu doy caa teg keneen sàmm gi ñuy sàmm askan daa tax ku ñu xam askanam bu wér bu fa nekkee koo xam ne dañoo umpale askanam du sax tey doomi njaaloo mbaa ku ñu foroon jàpp na ni moom ca dëgg-dëgg am na askan wér waaye daal kii lañ xam askanam kañ xam askanam daal lañ gën a taamu mu jiite fa xusni xuluxin topp rafetug jikko fa xalxin topp rafetug bind fa libaasin topp rafetug col bu yemee ci yeeñ weesu mën nañoo seet ku ca gën a rafet jikko teg ca ka gën a rafet bind ci na ko yàlla bindee teg ca nag ka gën a rafet koddaay ci ne lislaam taamoo koddaay nga xam ne koddaay la weex na te it tal na talaay boo xam ne duñ ne daa yaraax te it dem na ba àgg ca dojar ya te bañ koo weesu di buubu nga xam ne xatut yaatuut koddaay lu mel noonu daal ka ko am taamu nañ ñu jiital ko tor caa teg nag ka amewut koddaay lu mel noona nga seetlu nag booy jàng muxtasar moom dafa jiitaloon ki gën a rafet bind door caa teg ki gën a rafet jikko te boroom saraa ba itam noonu la saraaye waaye dafa mel ne ni ñu def fii jiital ko gën a rafet jikko door caa teg gën a rafet bind moo gën a yell wal awraan yi sopp nañ jiital ka gën a sàmm wal zahidi ak aji dëddu ja wal xurri ak gorsa xalaa xayrihim ci ku dul ñoom bu amee koo xam ne alwarihum lañ koy wax aji sàmm ndax day moytu yëlant ngir bañ a dugg ci la araam am na ku ñu wax al awran ka gën a sàmm mooy ka nga xam ne day bàyyi sax yenn ci dagan ndax bañ a jege lëlënt kooku xam nga moo féete kaw kon al awran kay bàyyi sax yenn yi dagan ndax bañ a jege lu lënt bu tasee kee nga xam ne moom lëlënt lay bàyyi ndax ragal dugg ci lu araam kon kooku gën a sàmm di bàyyi sax yenn yu dagan yi ndax bañ a jege lu lënt moom la ñuy jiital loolaa gën daal ne ku ci jiit rek ñoom ñaar mu baax ba tey ki nga xamee ne amul ak xemmem ci àdduna bu tasee koo xam ne am na ca ak dëgg aku xemmem it ñu taamu ñu jiital ka amul ak xemmem ci àdduna ak lépp luy jeex ba tey gor ak jaam ca bañ daan teqale gor ak jaam saa yuñ tasee rek ñu taamu gor sa jiite te jaam ba bañ a jiite kon yi ñu wax yépp moom ña fa tase woon matoon nañu ilimaan dañuy wax rek ne ku ci jiitu bu baax waaye nag taamu nañ kee jiitu dafa nekkul kee topp ca dafa nekkul kee topp ca ñooñu nga xam ne nag ku ci ne mën naa jiite bu ñu xëccoo jiite ga te la tax ñu koy xëccoo du daraja bëgg tuyaa bay yàlla wala taam alal ju ñuy fay kay jiite rek moo tax ñuy xëccoo bu ci kenn mënta bàyyee moroom ma dañ koy teg ay bant su fekkee ne nag moom dañuy xëccoo ngir daraja rek kene maay jiite kene maay jiite te daraja ji kese moo tax ñuy xëccoo dañuy boole bàyyi ñëpp ñëpp bañ caa jiital kenn ndax nee nañu woon buñ dee xëccoo jiite ga ngir daraja kon loola ak rëy moo tax ñuy xëccoo ku ñu jiite rek sëg julli yàqu ku ànd ak ñoom ñu jiite la rek sëg julli du baax wa wuquufu zakarin sopp nañu taxawu góor walaw sabiyan ak doonte gone la xàq la go xelu na alqurbata jaamu yàlla xan yaminihi walis ndeyjooru ilimaan wata ak xuruhoo akuk deltoom gannaaw an hu walis ilimaan ba xalilan tuuti su fekkee ne ilimaan ji ak genn góor rek ñoo fa nekk doonte sax góor ga gone la kàllafeegut waaye nag am na xelum jaamu yàlla du nekk di fo mbaa muy julli ba yàgg mu dem bàyyi fa ilimaan am na xelum jaamu yàlla kon dañoo sopp ilimaan féete càmmoñ góor googee wala xale boobee féete ko ca wetuk ndeyjoor te bañ a làng ak moom ba tolloog moom dëgg-dëgg xanaa xawa deltu gannaaw tuuti was nay ni sopp nañ taxawuk ñaari góor fa ak sara topp lu koob xalfaxoo ci gannaawam moom ilimaan wa nisaayin ak taxawuk ay jigéen xalfal jamii ci gannaaw mboolem ña ñu tudd bu fekkee ne ilimaan dafa nekk ak ñaari góor mbaloob ñaari góor dañuy sopp ñu rang ca gannaawam mu nekk ci seen kanam lu ñu bari bari rek bu sàppi soo sa matee ñu defaat seeni sàppe ci gannaaw bu ci jigéen amee nag moom ni mu ko waxee moo gën gàtt muy jenn jigéen muy ñaar muy mbooloo jigéen moom paaw rek ci gannaaw lay féete nit bu doon julli ànd ak soxnaam it tutee soxna si da koy féete ca gannaaw bu dee ilimaan ànd ak genn góor mbaa benn xale bu am xelum jaamu yàlla it na nga waxoon dara du ca sottiku ne jigéen ja moom féete ca gannaaw rek bu góor ñi defoon ay sàppe sàppe itam dañuy bàyyi ba sàpp yi góor yi mat bu fa jigéen nekkee wala mbooloo mu jigéen ba tey nekk ca gannaaw rek wa kabbara kabbar na almas booqu kañu raw baadal ihraami ci gannaaw kàbbaru armal li rukkoohin ngir rukkoo aw sujjóotin wala sujjóot laa li juloosin du ngir ab jataay wala yu axiru te du yeexe tàbbi ci julli ga soo dikkee fekk ilimaan raw la dañoo taamu nga daal di gaaw rek wax allah akubar ànd ak moom la ko defee ci julli ga boo fekkoon ràkk boobee mu rukkoo ca ba weesu ko nga xam ne wóor na la ne boobu ràkk moom raw na la ba noppi itam du tee ñu taamu rek nga daal di gaaw kàbbar fa saasa ànd ak moom ràkk boobee te bañ koo wàññiwaale ci sa julli dañuy bañ nga ne boobu ràkk raw na ma kon daa yee xamtalu bu mu jugaati ràkk ba ci topp rek ma door a ànd ak moom lañ gën a sopp rek mooy nga daal di kàbbar ànd ak moom gannaaw boo waxee nag allahu akbar muy armal su fekkee daa fekkoon ilimaan di rukkoo mbaa muy sujjóot da ngay waxaat beneen allahu akbar boo xam ne rukkoo ba nga ko fekk wala sujjóot ba nga ko fekk moo tax nga waxaat ko ndax sëgg rukkoo dafa am kàbbar sëgg sujjóot am kàbbar kon boo fekkee sa ilimaan ci rukkoo mbaa ci sujjóot boo kàbbaree kàbbaru armal ba noppi nag da ngay waxaat beneen allahu akbar ngir rukkoo ba nga ko fekk wala ngir sujjóot ba nga ko fekk gannaaw boo kàbbaree kàbbaru armal daal su fekkee ilimaan ja ci jotaay nga ko fekk da ngay jekki-jekki toog rek na mu tooge waaye doo waxaat beneen allahu akbar waqaama jóg na lil qadaa jëm ca fay ga bi takk biirin ànd ak wax allahu akbar in jàll sa ndem toog na moom kañu raw fii taaniyat yi ci ñaareelu boppam fii taaniyat yi wa illaa ndem foofa du ab ñaareelam benn la ca moom wala muy ñetteel tey du timis fala kon du wax allahu akbar illaa mudrikun nday aji jot duuna rakkatin lu yées ab rakka dañ lay faral di wax naa bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg bay fay lam la rawe waxal allah kubar door a tàmbalee jàng faatiha léeg-léeg ñu ne la da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng faatiha te bañ a wax allah kubar takk-takk bi nag mooy lii mu andi fii su fekkee ne fa nga tàggoog ilimaan mu sëlmal yow nga jóg di fay ab ñaareel la ci yow nga xam ne boo doon jul yow dong it da nga fa toog taaya fa taayu digg kon bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da nga wax allahu akbar doora tàmbalee jàng faatiha nga dolli ci nag su fekkee la nga fekkee julli ilimaan matul sax benn ràkka da ngaa ñëw ca ràkka ba ci mujj te fekke woo rukkoo ba niki nga fekk ko muy taay rek nga ànd ak moom ba mu sëlmal ko itam boo jógee da ngay wax allahu akbar mel ni kuy tàmbali sa jullit bopp yooyu yaar rek ci ngay waxee allahu akbar gannaaw bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg bay fay benn bi mooy li nga fekk ci julleem ñaar rakka dong la du benn du ñett yéesul ba tey benn kon moom bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng waaye bu fekkee benn rakk rek nga ànd ak moom mu sëlmal wala day julli ñeent rakk nga fekkee ñett ya bu door a sëlmal kon foofee nga toogoon ilimaan baa la fa taxoon a toog waaye bu doon yow dong benn rakk doo fa toog am ñetteel boo xam du timis itam doo fa toog kon nag bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg bay fay da ngay jekki-jekki rek tàmbalee jàng faatiha te bañ a wax allahu akbar wa qadaa fay na alqawla wax ja wa banaa te mu jokk alfian la jëf ja wa huwa moom jëf ja nag maa xadal qiraata mooy lépp lu bokkut ak njàng ma muy nag bu la ilimaan rawee ba mu sëlmal say boo seet ne ràkk bu ne lam ci jàngoon moom nga ciy jàng nit ki bu fekkee ràkk boobu da caa jàngoon fatiha ak saar boo koy fay da nga cey jàng fatiha ak saar duñu ne nag faaw da ngay jàng saaroom jàngoon saar woo jàng rek mu baax ndax bu dee yellu sax mën naa am doo xam woon saar la jàngoon mën naa doon biral sax nga fekk mu biral ba noppi doo xam saaroom jàngoon li ñu bëgg a wax rek mooy ràkk bu mu jàngoon fatiha ak saar boo koy fay da nga cey jàng fatiha ak saar ràkk bu mu jàngoon faatixey kese boo koy fay da nga ciy jàng faatixey kese fu mu yalu woon nga yalu fa fu mu biraloon nga biral fa loolu waaye nag jëf ja moom doo ko ca roy doo seet ni fii dafa toogoon mayit daa fi toog taaya wala fii toogu fi woon mayit duma fi toog da ngay seet rek foo xam ne yow ñaareel la ci yow rek xam ne bu doon yow dong nga toog fa taayu taayu digg daal di toog foofu yow it taayu fa taayu digg doonte ilimaan toogu fa woon foo xam ne itam ilimaan toogoon na fa waaye yow du sab ñaareel bul fa toog loolu nag mën nga koo jàng ni ba noppi boo ko doon def tey xëy na nga juum ca ni ki tey timis boo ñëwoon fekke rakka ba ca ilimaan mujj julli muy rakkaam bu mujj bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw doo wax allah akubar ndax benn rakka nga tàggoog moom benn nga am ci julli gi rakk boobu nga taawoo da nga ciy jàng fatiha ak saar te biral ko ndax moo doonoon rakk ba ilimaan njëkk a julli bu rakk boobu jeexee nag yow da ngay toog foofu taaya ndax xam nga fekk nga benn ilimaan boo ci tegee bii mu daal doon ñaar da ngay toog foofu kon taaya boo jógaatee rakk bi nga taxaw ñetteel la ci yow waaye nag moo doonoon ñaareelu ilimaan kon na nga cay jàng fatiha ku saar te biral ko ndax ñaareel la woon ci ilimaan yow nag la sopp ko sa ñetteel da nga cay jàng fatiha ak saar te biral ko muy sam ñetteel baraka boobu jeexee nga taaye sëlmal ku li daloon mën naa am bu teeluwul rek bu ilimaan sëlmalee ñaaraaka yi ci sës yépp da leen di sësale bu ne mu jàng ca fatiha ak saar biral daldi toog taayu sëlmal fa mudriku taaniyati subhi aji jot rakkab ñaareelu suba yaqunutu dana xunnoot fii rakxatil qadaa'i ci rakkab fay ga li waxoon dala ci jox misaal mu ne la jullik suba boo dikkoon fekke rakk ba ilimaan mujj julli bu ilimaan sëlmalee ba ngay indi ràkkab ñaareel ba da ngay jàpp ne yow ràkkab ñaareel boobu moo doon ba ilimaan njëkk julli waaye yow sopp ku na sopp ñaareel kon da nga fekke woon xunóot ci ràkkab ñaareel ilimaan da ngay xunóot kon ci sa ràkk bi nga xam ne ci ngay fayee ndax yow mooy sopp ñaareel te ñaareelu suba mooy am xunóot su fekkee nag fekke woon nga xunóot defandoo ko ilimaan ci rakk boobee nga fekkee du jar ngay xunóotaat ci sa rakkab ñaareel bi wa ahrama armal na man ka nga xam ne xashiya ragal na fa waata rakxatin faatug rakk duuna safi lu yées sàppe sa waaye nag danga koy firee duuna safi ci fu jege sàppe sa in wan na ndem jort na idraakaxoo ak jotam maanaam àgg ca sàppe sa xabla rafi ci njëkk siggik ilimaan wa illaa ndem jortu ko tamaada mu wéy ilayhi ba ca sàppe sa illaa an takkoona ndare bu ràkk boobee daa nekk al axirata di aji mujj ja wa dabba te mu jukkat kas saf fay ni lu tol ne ñaari sàppe li aaxiri furjatin ba ca aju mujj ab yaatu yaatu raakihan mbir mu muy aju rokoo aw qaaiman wala muy aju taxaw fii taaniyatihi ci ràkkab ñaareelam ba ne laa jaalisan du muy aju toog su ñëwee ba jege sàppe sa fekk ilimaan juru ko mu bañ nag ràkk baraw ko ndax xëy na su waaxoo ba dugg ca sàppe sa rek ilimaan siggi booba ràkk raw ko kon foofee mu tollu te jege sàppe sa mën naa daal di gaaw rek rukkoo waaye nag xoolal sart biñ la wax da ngay seet ba mu wóor la ne mbaa nga jort bu baax ne fii nga toll boo jàppee ci say wóom gannaaw ba nga armalee noonee nga sëggee da nga mën a dox ndànk di wuti fa ngay dugg ca sàppe sa te da nga ca àgg itam balaa ilimaana siggee ca rukkoo ba kon da ngay daal di armal daal di jàpp ci say woom foofee nga toll noonee nga sëggee nag jàpp ci say woom ngay dox ndànk nag wuti sàppe sa nga bëgg a dugg su la wóoree ni loolu mënoo ko nag faaw ilimaan siggi bala nga àgg ca sàppe sa kon doo saña armal jàpp ci say woom te àggoo ci fa nga jëm ca sàppe sa da nga wéy rek ba àgg ci fa nga jëm bu la ràkk booba rawee itam nga séentu beneen lu may nag ràkk booba kat moo mujj ca julli ga bu la rawee rek mën na am doo am ngëneelul mbooloo ndax mooma mbooloo raw na la te wóor da nga am meneenam déet kon daañu la may rek nga daal di gaaw armal daal di sëgru ko fasaasa dane woon bu fekkee rakka boobee doonut ba ca mujj doo sañe jekki-jekki gaaw armal jàpp ci say woom lu may da la wóor mbaa nga jortu bu baax ne noonee nga jàpp ci say woom da nga mën a dox ndànk ba àgg ca fa ngay dugg ci sàppe sa te ilimaan du sigeegun ca rukkoo ba mu bëgg a leeral ne xëy na kat nga jàpp ne loolu mën nga ko far sa njortu nax la wóoroon na la ne man ngaa gaaw armal jàpp ci say woom noonee nga jàpp ci say woom nga dox ndànk wuti fa nga dugg ca sàppe sa balaa ilimaana siggee ci rukkoo ba naka nga ko def nag far sa njort nax la gaaw nga kàbbar jàpp ci say woom sëgg doon wuti nag fa nga bëgg a dugg laata nga fa àgg ilimaan siggi bu ilimaan siggee yow it da ngay siggi ne moom tawit da ngay siggi rek na ilimaan ba siggee ci rukkoo ba te nag xam nga ne boo siggee ci rukkoo ba ak diggante ba ngay sujjóote day gàtt bul fa jéem a dox di wuti fa nga war a dugg ca sàppe sa da ngay far rek sujjóot foofee nga toll bañ jàll ci ràkk ba ci sës ba taxaw nag ci taxawaay boobee nag ngay door a dox ndànk wuti fa nga bëggoon dugg ca sàppe sa bañ tolloo ca diggante ñaari sujjóot ña wala bu fekkee ràkk boobee taay da caa sësoon bu mu tax nag nga toll ca toogaay boobee bëgg a bafungu nag ndànk di wuti fu ngi dugg ca sàppe sa ndax darngu bafungu noonu di darngu dafa ñaaw dafa rafetut ngay bàyyi bañ jóg ba taxaw ci ràkkab ñaareel ba rek nga door dox ndànk nag dugg fa nga bëggoon a dugg boo duggee it ca sàppe sa te séenaat foo mën a dugg ca sàppe sa ca kanam jàllal ba ca soosa boo séenaatee ca sàppe ba ca kanam foo mën a dugg it jàllaat ndax sàppe sës ci ilimaan moom bu ëpp tuyaaba ba addis ba wax ne nit ñi buñ xamoon tuyaaba ji nekk ci noddu ak taxaw ci sàppe su njëkk buñ xamoon tuyaaba ja mënuñu koo ñàkk tegoy bant dana leen jaral tegoo koy bant kon nag boo duggee ci sàppe si seen ca kanam foo mën a duggaat da nga cay jàll lu bokkut ak sàppe si nga dugg wala bokk lu bokkut ak sàppe si nga génne ndegam daa fekkoon nga nekk ci sàppe daañu la may nga jàllaat yeneen yaari sàppe ca sa kanam wa in shakka ndéem sikki sàkk na fil idraaki ci jotu ràkk boobee alxaaha mu wàcc ko wa qadaaha te mu fay ko ba'da salaamihi ci gannaaw sëlmalam ba boo fekkee ilimaan muy rukkoo nga kàbbar nag doon gaaw di jàpp ci say woom waaye nag wóor la ba xam ci dëgg-dëgg daal booba ràkk bokk nga ca wala bokkoo ca ndax jàpp nga ci say woom njëkk ilimaan di siggi ba taxaw joon wala déet xamoo ci daal lu wóor da ngay bañ a limaale booba ràkk bu ko defee bu ilimaan sëlmalee nga fay ko weccee ko beneen dañu ne woon ba ilimaan di jàpp ci woomam nga jàppandoog moom du cab sart sart ba kay mooy balaa siggi bay taxaw jonn rek na fekk yow nga sëgg nga xam ne bu ilimaan jàppoon ci woomam nga tàmbalee sëgg